jeewali iblisa isna taytuhu ودم من بكم يا سيدي يا منقذي يا رافعي يا ملجئي يا قائدي يا نافعي إني إلى بابكم أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تاكلوني أبدا لغيركم لا تحلقوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تحجبوني عنكم لذنبي وقلة الحياة ورين القلب قد يدي عبدا قد رجاه ذاك وليس يرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمقتدي نحن الذين نهتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك نهتدي نجي جميعنا من النيران وقد سمامنا إلى الجنان أنت الذي تنجي التوادي فضلا فأقارنا من الهداة لطيف بالتف وبمن تعلقا بي وبالأمة سدن يرتقا لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفذام لست أفوض إلى غير جليل أمري وما فعل بي فهو جميل هو الذي لا أرتجي نفا ولا أقف درا من سواه مسجلا بي بصير وكفاني الوكيل ولست مائست لغيره أمين صدور قوم يسرا عن الدين والنور والإسلام كل عين يسر جميع صفة للإسراب والمسلمين رب لا للعسرى رل صوبة الشعاب أبدا حتى أقود المسلمين للعدا بكم أطيل وبكم أبيت وبكم أحيا بكم أموتم أنتم أمامي أنتم ورائيا أنتم يميني أنتم شماليا أنتم أمامي أنتم ورائيا أنتم يميني أنتم شماليا لأنتم تحتي أنتم فوقي وأنتم كل يسيد فوقي عن السمام من التصبصب وعدم العيا وسوء الأدب بجاه سيد الورى المختار وآله وسامي الأغيار أسكى صلاة الله والسلام عليه موم بلا اقتتام دام لرب الحمد والشكر كما دام سلاما على من اعتمى من ساء فليؤمن فرح مولد النبي محرما كماله قاد الهنا والكرما من لك مولد النبي سفرا بشارة قالدة لم تكفرا نفع مولد النبي ربيعا الأول الذي أرى الينبوعا شرف مولد النبي ربيعا الآخر الذي اعتمى المتبوعا أكرم مولد النبي جمادا فلا يزال شاكرا حمادا أعطى النبي بشارة جمادا قدت بها بفضل عمادا فا فاز بمولد النبي رجب فوزا به انقاد إليه العجب للمصطفى نور أدى شهبانا قاد له من ربي قربانا يقود مولد النبي لرمضان فضلا فضلا عظيما قد يديم الفيدان يقود مولد النبي لرمضان فضلا عظيما قد يديم الفيدان القرآن وجعل مولد النبي سوالا بما به قد له نوالا مولد أحمد أداس العقدة إذا أتى في بدت وبعده نور مولد النبي صلى الله عليه وسلم قد له درجة وحجة مولد النبي سلعجا قال له درجة وهجا نور مولد النبي صلى الله عليه وسلم قاد له درجة وعجا جاب شدام مدقي جاب يالا تدو ترم مدقي تدو يالا borom tuba di tudd tur wa màgg naa mooy dëgg tudd yàlla mbóot ma àgg naa ku bëgg sell del di karturam wi sikran kasiran tey xalam melom wi di ko fi sikri wa tafakkuri ku ko saxoo wat naa ni dootu la walliyu kaamil moo ma dey turam wi ma di ko ba janoog melom wi gis naa jëmmam ji digg wax ja wax ko ma wax waaye du tee borom Tuubaa yaakaar ji waaye du tee ma naa borom Tuubaa yaakaar ji waaye du tee ma naa bëgg naa la xam nga ni man jooy cofeel ca laa sax sa xol di jooy sa bët di tooy te yaa tax dee leen si kar turam wi yëg leeram gi bu tojul lu lay xamal ne xam gi bismillahi rahmaani rahim jërëjëf borom Tuubaa amul morom jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba ragal taxa ba nit ñàkk lam amoon banaa ñépp tay fa fuŋuy ci buumu borom tuuba jaloore borom tuuba xanaare yi gëyeem na leen da koo talil boppam ku na moom tuuba fa walla ñi ànd ak yow bisu pinc doy na lay ku juyook Sëriñ Tuuba du gis jëm Tuuba bu neexoon borom Tuuba ku dingat torok fasa sëkkët yërmandim jaataxaan nde kon kenn du dem Tuuba rëyi jëf te wéet ca lool xuloo jaaxle woo xanaa men mbubbum ndam mi am yaa ko sol Tuuba waxoona man kon diw samay mbir jëm kanam danga jéeg gi min defu yépp li tax nga am tuuba mosoo daw ngi rubu say saay te waajoo fi dégg tey bu koy pontu doon jam du tutal mu ku waa tuuba te looy wax mosoo fat waxatu doot daw ngir ku ragal ku naa tey dafay kabbar na njukkal borom Tuuba waxoona damay masla basaanoon yi baal ma tey danga sax ci sag jaamu tanaa lema dem Tuuba ba buur ak sëriñ si ne ku liw tuub tubaab bi xam danga wax ni man dey kenn du tee may borom tuuba yoway jant boo déggee ñu naa weer wi leer na tey xanaa booba yaa finkul nañuy ber borom tuuba amoo kem amoo maas tey ku muus nag te bëgg a raw kemam yëpp nay wéetal di kennal borom Tuuba amul ku ñu sang may tay yamoon gosam cundum du ab xutbu du yónneen danga wéet Sëriñ Tuuba mosoo wootaa ku yónneen danga wax ni sambindey taxam wecc ay yónneen ku lay mooy du dem Tuuba li lee tax ba seytaane mu ciy pexeem di sikkal sa ay di ba ñëpp dem Tuuba moroomum sëriñ Tuuba ku koy sàkk nak xamul nda yàlla tapet dundam ci dunduk borom Tuuba rëyug may da war naa tax ñu wax nag ci kaw li kaw jërëjëf borom Tuuba jërëjëf borom Tuuba waroon naa waral nag tey ñu fab ruuy jox ko ko di jental sunuy kër baay ak i ndey di dem Tuuba Muhammad Rasulillah xam naa ni bég na tey ndada sopp koy way lool ak ay kañ borom Tuuba Muhammad Rasulillah xam naa ni bég na tey ndada sopp koy way lool ak ay kañ borom Tuuba أبيت أن الرسول الله بشرني والبشر عند رسول الله والبشر حلا زول الإمام قلبيتها النرس لا إله الله بشرني لا إله والبشر عند رسول الله والله راحب سرني سرني والبشر إلا رسول بايعته إلا أن لا إله إلا الله وسببتني لا إله إلا الله بكفي بالقمات الخير الخير وأنبت أن رسول أن رسول الله بشرني بشرني والبس روح الله رسول الله لا إله داء لا لا لا داء وصابتني لا لا لا بكفي ذي بشرني والبس روح الله لازمت صبرا جميلا وقت أديت بما فهو علي وما جاسر الله بشرني الله بشرني بشرني والبس ركبي شهدت دهرا طويلا لا اله الا الله في وداع ومضى الرسول بشرني بشرني والبشر رسول معمول قد أدبروا دعاني ما أذن وبكر وليس لي الحياد عسيت وأنبت أن رسول أن رسول بصرني بشرني والبشر في الله رسول الله مامون فروا لخير بلا يا نتوى أبدا أبدا وجاني رسول الله تأويل وفر لخير بلا يا لخيانة من رسول الله تنال فروا فروا الخير ملاد خيانة أبدا أبدا وجاني والرسول الدول أمن وبمصداح الأملاك والله أمن يا نور اليوم مصداح من أملاك والأمن وبمصداح الأملاك والله أمن يا نور اليوم مصداح من أملاك حكم القوم مكاشفة استغفر الله جدل استغفر الله عذابا مدى لما ذكرت من العدناش والقسم ويغر الناس ور في شيء ما ذكرت من الناس والله غضبي بما ذكرت من الناس ور بالخسني لما ذكرت من العداس والغضبي بما سكرت من العداس والغضبي تريا من بعد ما تدع فقر وسادرنا لما أدخنا وترى بشرى ثم صلاة على المختار من شبل خير البرية من بعد خير البرية من باك ومنتزم دلو كنيات بكات ويات دلو سلوات ndami soxna jaara ki jaloore mu ñaaxuwaat ma dellu kañaat bakkat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloore mu ñaaxuwaat ta tanqi ci géejëm gi saxoo duusu gi ومن الله وانجي دول فلان ما تخمصخ منك وقم شقوات من جارك كدك على شوين يبنى نفسك سيئة كان الكوكا بكر كوكا وكوكا موكا بابا شوين يبنى نفسك سيئة تبا خمقريقا تخشن بلنا رفر لهم جمعون نبو شنو يعلي اسكيات Bamba moo tax nu am xiiwal sëñ Bamba sëñ moo tax nu am xiiwal sëñ Bamba sëñ moo tax am xiiwal sëñ Bamba sëñ moo tax am xiiwal sëñ Bamba sëñ Bamba di seen wéy ala ala ala di ñëw yow kenn du delluwaat sëñ Bamba ba tax yaanu moom moomaale nun moom di say alal suñu yëngu ak suñu dal suñu dundu mbaalu faatu law na la doom nit foo joxoñ foofa la taxawul bisu lu dulaw lu talu yaas lu waat jigéen ñoo ñandi koon nay som nga dal di waat ju rasulullah ndamoon ju rasulullah rek mooy me bet maan ngara pas pasam moorey ba tax yóbbu ceero yaat keroog ban yere kaamil bayam ci waxaatimu na daal fay fas ngir kon kay tey sa saat mor susu baa ngi sëñ mor susu baa ngi sëñ mor susu baa ngi sëñ mor susu baa ngi sëñ mor susu baa ngi waxal na ko mbiri yu rëy sant na yéede cantam mbiri na ko dolli waat wasala ala xayril wara salima wali wa sabil أمواتنا وخونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا صلينا على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم وقد حوائج الذين داموا في قدمتي وهب لهم ما راموا أصب سجودي أصلح أموري كسر قلوبي بلا كدائي يا من أجاب من استجاب بالإجابة في سندائي يسر لنا المراد هب لي المال والفتح والتيسير والكمال yow mata taqul li amri kun yakun qad iqada hajati bi lafzi kun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalaamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin adi sëñ Tuubaa adi sëñ Muxtaar awali ayasa minni law hinda jeewali iblisa isna daytahu biya wali